li xew ci avec euh, nos collègues Massata Samb et Mamadou Niang ñun dañuy ñëw un peu pour indi ay éclaircissement ci motion de censure bi euh, bala may dugg nag ci yuqu wax ji sax euh, dina baax ñu def benn précision liminaire donc nous avons été convoqués pour le lundi 12 ci déclaration de politique générale Premier ministre dimanche 11 à donc on a terminé une réunion où on devait statuer sur euh, les questions sur lesquelles nous travaillions parce que on a travaillé sur tous les sujets. Et quand la motion de censure a été synthétisée, à 23h34 minutes sur mon téléphone WhatsApp, j'ai appelé le doyen Lamine Diam. jotuma ko le lundi le jour de la déclaration de politique générale à 8h je l'ai appelé. jotuma ko il m'a appelé à 9 h minutes ne ma il est dans les embouteillages et que mi ngi ñëw bu ñëwee ñu defar liste yi ma ne ko non j'ai besoin de vous il est arrivé à 9h45 ma wàcc fekk ko bureau je lui présente la situation la réponse qu'il me donne mooy ñoom ils se sont rencontrés le dimanche mais ils n'ont pas évoqué la motion de censure aussi pour ñu mën ci liggéey ñoom il faut qu'ils prennent les avis des hauts d'en haut des hauts ci loolu je dis non on vous écoute euh, bu ngeen paree vous nous revenez et nous sommes partis mais je lui dis avant avant may génn ma ne ko mais ñun li ñu bëggoon a xam parce que je considère qu'il a une expérience am na benn vécu parlementaire boo xam ne ni dina am solo ñu jël ay avion ma ne ko li may laaj mooy pour yow ban moment moo gën a approprié pour déposer la motion de censure mu tontu ma ne ma woowal le président Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo le tekki il va te dire c'est quand c'est quand le moment le plus approprié j'ai dit Abbas Fall demal ci doyen Mamadou Lamine Diallo nga poser ko question bii Abbas Fall vous l'avez fait ou pas Abbas Fall l'a fait li may wax nii sa date du lundi 12 Abbas Fall interroge ils nous ont donné des conseils et ce sont ces conseils là que nous avons appliqués les yi nga xam ne moom lañu doyen Lamine jàll de tekki bi bokk ci groupe parlementaire liberté démocratie donc wàllu avis yi ñu jox on leen appliqué quelqu'un qui dit qu'on l'a pas associé et je non on ne s'en est pas arrêté là-bas parce que ci guddi gi ci la am les incidents et je voudrais apporter une précision là-bas je di bien man Birame Souleye j'ai interpellé le ministre de l'intérieur sur la situation des députés il a dit vous pouvez partir avec eux l'avocat bi doon wax barki dem au tribunal il a menti waxul dëgg parce que man maa interpellé le ministre de l'intérieur mu ne vous pouvez partir avec eux j'ai parlé au commissaire Adramé Sarr de la DIC il a bi ko ministre l'intérieur woowee et sur ces entrefaits la garé sama oto ci buntu assemblée nationale ñu jël député yi ànd ak ñoom ci la ñu gars yi topp ak ay oto ci la ñu def demi tour dellu DIC j'ai dit au commissaire mais vous vous ne pouvez pas nous dire nañ dem ak ñoom ba pare ngeen ñuy topp donc tout ce qu'il a dit est on ne peut pas défendre la vérité en le basant et en le Et pour revenir à notre sujet, le lundi a fait le document, parce que Nyong ne nous sont pas revenus, nous, on a attendu jusqu'à 20h de nous déposer. 20h de déposer. J'ai dit aux députés, la motion de censure. Ils ont signé et nous avons déposé. Nous le mardi matin à 10h, parce que ñii suñu député il n'a même pas reçu la copie de la motion de censure parce que bi ñu ko déposé ba ci guddi gi ci la am coow lu bari envoyé la copie bi ñu defar ñun de la motion de censure mardi loo xam ne ni jeudi lañ koy voté bi ñu woowee conférence des présidents le mercredi le mercredi bi ñu woowee conférence des présidents man Lamine Thiam ak Mamadou Lamine Diallo on a tenu une réunion d'à peu près dix minutes pour parler de la motion de censure na taxaw waat ci alxuraanul karim ne on a jamais eu ces entretiens là dëgg bu jotee dañ koy wax dañuy def politique on n'est pas tenu d'être d'accord sur tous les sujets mais boo xam loo xam bu amee waxal sa aqulaahi taala du sa c'est pas une question d'expérience c'est pas une question d'âge question am gëm-gëm la te di ko wax ils assument leur responsabilité on n'a pas à les juger Mamadou Lamine Diallo mi ko voté walu la bokk léegi ñoom nañ laaj bu ñu leen yëgalulee pourquoi seen député di voté comme ñoom ils peuvent se permettre d'avoir des députés ki ne votent pas les budgets foofu laa ci yem maintenant ça c'est la vérité des faits voici les faits l'interprétation est libre mais li moo ci am et on peut en donner des exemples où on travaille ensemble maa ngi koy wax léegi sur le faux du règlement intérieur ñoom ñoo déposé courrier sur la table du président de l'Assemblée nationale bi ñu joxe copie bi ñun xaaruñ on leur a dit ñun on fait venir un huissier on fait les constatations d'huissier et on dépose une plainte collective li man maa man maa indi man maa bind ce que devait être les conclusions de l'huissier jox leen ko lii seen i amendement la ñoom mu ngi nii lii Lamine Diallo moo ko bind. donc diir que on les a pas associés ñun xaaruñu ci loolu loo xam ne dañuy voté assemblée nationale bi ñuy ànd ak ñun askan di leen wax dañu leen ñun bu ñu demee assemblée nationale taxawaay bii lañ fay am ñun nag wàccuñu ko taxawaay bi ñu fa yóbbu woon moom la ñuy doxee te duñu denc di ko dox moo taxit taxawaay boobu ci lañ waxee woon ni. incha allahu rabbi législature bi dinañ gis loo xamante ni lii mooy assemblée nationale bu wuute assemblée nationale bu wuute nag xam nga lu muy tekki boo demee ci constitution wala nga dem ci règlement intérieur assemblée nationale bu baax bi lépp loo xam ne lii yoon jël na ko teg ko ci loxoy député muy doon ak xam ak yelleefam ñun député coalition Yewwi danañ ko taxawe ba mu mat sëkk et taxawaay boobu moo indi ñu def motion de censure parce que yoon moo jàngale ni ci diggante collaboration bi am ci assemblée nationale ak le gouvernement gouvernement bi am na président de la République am na droit mais assemblée nationale am na motion de censure loolu yoon moo ko wax dégg ngeen ñoom seen bopp nee nañu bu ñu gagné en 2024 dañuy dissoudre assemblée nationale c'est un droit que la loi leur donne ñoom ñoo koy jël utiliser ko na mu la neexee ñoom dig nañ ñu 2024 dañuy tax assemblée nationale loolu la ñu dig bu ñu gagné donc ils vont appliquer un droit mais ñun bu ñu indee motion de censure qu'est-ce qu'on fait c'est jël un droit qui écrit dans la constitution bu ñu fàttee ñoom disposition yi article 86 moo wax ni député yi bu ñu doy un dixième des députés maanaam 17 députés bu ñu bëggee déposer motion de censure mën nañ koo déposer donc toutes les conditions yi nga xam ne bi moom la yoon tëral pour ñu mën a déposer benn motion de censure matal nañ ko kon kay mën nañ ko déposer lan moo tax duñ ko def dañ def parce que on n'est pas li tax voté wuñu budget bi moo tax bi premier ministre ñëwee wax ni il s'inscrit dans la continuation de ce qui a été fait depuis 2012 lan moo fi xew toj Khalifa Sall moo fi am de Assane Khalifa Sall c'est un ordinateur ce n'est pas un comptable loolu dina baax ñu def la comparaison parce que des ordinateurs ministres ñu ngi fi toog ci biir Cour des comptes bi li yet li ñu dóor Khalifa Sall de manière injuste dinañ ko xàcc fëgg leen ko ba ñuy miir pour mu leer donc lan moo fi yees dara beesu fi ñu ne ils vont s'inscrire dans la continuation dans la continuation xam nga lu muy tekki mooy tekki ni képp ku faraloon ñun dinañ la déglu dinañ la topp dinañ la toroxal et on réduira l'opposition à sa plus simple expression pendant 12 ans c'est ce qu'ils sont en train de faire lépp loo xam ne lu voix discordant la bu méngoowul ak la ñuy wax danañ la saaga danañ la xas danañ xatti sa xorma bu ñu ko mënee dañu dugal ci kaso bi lan mooy seen bilan sur les droits de l'homme laaj nañ ko premier ministre bi mu ñëwee a posé la question ne ko yéen yéen fi nekkoon pendant douze ans dix ans aujourd'hui wax leen ñu lan ngeen def quelles sont vos victoires sur la lutte contre la corruption zéro quelles sont vos victoires sur la lutte contre les détournements zéro quelles sont vos victoires sur la lutte contre la fraude fiscale zéro waaw mais ñooñu bu ñu la nee on s'inscrit dans la continuation jàpp nit tëj détourné ay aujourd'hui ay nit ñu formé leen ci armée bi ñu jàng def sport ay nit di disparaître dégguloo benn ministre bu ci wax dégguloo procureur bu ci wax procureur di wax ci ay soutien gorge bu réer euh, xam nga ay mbaxana yu réer ci loolu lay wax ay ay ay ay gendarmes des gens formés pour défendre sa pays là disparaissent mu ne mukk mu xaaral fu ñuy def fu ñu koy yóbbu ñu koy yóbbu of voilà li ñu ne ni moom mooy seen continuation on a le droit bu wàccee ñu poser question yu tontuwu ci ñu ne ko danañ la déposer motion de censure parce que gouvernement bi ñu indil nii mooy gouvernement bi nga xam ne 32 milliards la bëgg jënd ay lacrymogène te laaj nañ leen lacrymogène yi ñu jënd yan xeet la ils n'ont pas répondu aujourd'hui boo demee Sénégal mooy dëkk boo xam te ni bii boo demee ci prison yi 5000 personnes ña nga fa kenn attewu leen day détenu préventif maanaam dañuy sur les 11 000 il y a 5 500 en détention provisoire ñu ne ils continuer ça ñun voter ce budget là mooy accepter ñu continuer tëj nit ñi voter ce budget là mooy accepter que li ñu jiñ Karim Wade dëgg la ñun gëm nañu li ñu jiñ Karim Wade du dëgg moo tax on a mis la motion de censure et on a voté léegi nag motion de censure amul ñetti vote pour mu leer ñu demoon ci école de droit yi jàng droit motion de censure amul abstention dañuy leeral pour ñu jàngi woon droit parce que non on s'est abstenu motion de censure amul abstention d'ailleurs les seuls votes que l'on compte ce sont les votes pour jeex na ñeneen ñi on les considère pas donc seuls les votes qu'on a comptés il y a 55 députés cinq députés 53 yi députés Yewwi la il y a Mamadou Lamine Diallo il y a Mimi Touré jeex na leneen lu ñu ci wax c'est des considérations superfétatoires pour mu leer et suba si l'opportunité nous était donnée de montrer encore à ce gouvernement là que ànduñu ak moom li mu bëgg a teg Sénégal yi d'accorduñ ci li mu bëgg def ci presse ku fi génn wax loo xam ne méngóo li ñu bëgg ñu jëpp la toroxal la on refera la même chose et je précise bien dans le cadre des perspectives de ce que nous sommes en train de faire am na ay actes yoo xam ne dañ ko poser pour mu leer parce que dañoo wax ni lépp loo xam ne lii yoon may na ko député bi ci biir réew mi ci sunu législature bii le temps mu koy tas. danañ ko doxal ba mu mat sëkk et bokk la ci doxal ko benn benn mooy gis nga rapport Cour des comptes yi ay dama ci teg sama tonc du fi parce que la première chose qu'on va ñun président Macky Sall ay wax na ko léegi dañoo wax sénégalais yi dem leen ngeen toog seen kër ñu sàccal leen seen alal loolu lañ wax dem leen ngeen toog seen kër yi dañ leen di sàcc dem na ngeen bu leen ñu gis bu ñuy sàcc moo tax ku ñu fekk ci mbedd mi dinañ duma jël côté marché def ko rideau maygal tëll ko ci yëkkati ca kaw gars bi jàll ci suuf on l'a bien démontré côté marché public rideau maygal la ce qu'on va faire mooy conclusion yi on va lui demander dans le cadre du pouvoir euh, euh, euh, disciplinaire capitaine Touré indiscipline lañ ko teg dans le cadre du pouvoir disciplinaire ñëpp ñi nga xam ne bi seen loxo dugg na ci lii parce que c'est facile de dire DAGE yi la le DAGE est un comptable il y a l'ordonnateur des dépenses pas dire dans ce pays là yow la dénk xaalis bi dans le cadre du budget programme ñu wax ne yow yaay assumer la responsabilité nga wëlbati ko bëgg ne non DAGE yi la ils ont bon dos parce que depuis que le Sénégal est Sénégal yi la ñu bëgg a rey ci kaw Khalifa Sall daal lañ ne nañ bàyyi DAGE bi dem jàppi l'ordonnateur incha allah rabbi on va continuer à prendre les ordinateurs et de dañuy wax président assemblée nationale na am taxawaay bi ci war et on on va lui écrire officiellement pour lui demander à ce que ce pouvoir disciplinaire là ñu exercer ko ba mu mat sëkk te loolu benn la parce que ñaareel bi on fera des questions d' actualité le gouvernement il va revenir gis nga député yi toog assemblée di saaga nañu dem nammi seen làmmiñ nañu dem wutiwaat ay saaga parce que lu ñu ci indi ci lu ñu indi ci saaga ñoom ay saaku doyul parce que ministre yi ñu bañ ñu ñu indi leen foofu yi ñuy bañ ñu indi leen foofu dañu leen fa andiwaat amul congé amul vacance ñoom ñëpp laa wax député yi tox di saaga ak ki nga xamante ni moom nee na président de groupe la jàppale ñun ay gamee lañu on va le démontrer ici c'est la science c'est la connaissance moom la ñuy andi benn ñun benn mandataire la kenn moo ñu yónni kenn kenn moo ñu yónni c'est le peuple sénégalais te li mu ñu def loolu la def donc dama ni nañu namm seeni saaga incha allahu rabbi ñu tëx lañ fiy fekk li ñu intéressé mooy que la vérité se fasse jour et eh, nan la ñuy ñëwee ci loolu gouvernement dina ñëwaat dans le cadre de ces dans le cadre de ces questions d' actualité le premier ministre il reviendra à l' assemblée nationale dina fa ñëwaat mais yamuñ ci loolu parce que nag ni ma ko waxee woon député yi yoon daf leen may ay pouvoir yoo xamante ni incha allahu rabbi ci bii dana mat sëkk benn bi mooy les député peuvent être des juges et parce qu'ils peuvent être des juges bërki démb Guy Marius Sagna informé na on a écrit au président l' assemblée nationale pour à ce que l'on choisisse les députés yi war a siéger au niveau de la haute cour de justice parce que les ministres bu ñu defee ay njombe ils sont redevables et le président de la république ils sont redevables devant la haute cour de justice bind nañ ko parce que fañ jëm foofu lañ jëm ak ñoom ministre bu ci taq bu ñu la dégloo ba noppi ba ñun ñu am la conviction certaine en tant que juge que lii nga def da nga wàcc yoon te amul naatable ndax ki bind wax ki bind wax c'est la cour des comptes c'est un danañ leen déglu dans le cadre de cette cour des la mooy dañu wax ne nañu installer la haute cour de justice parce que fi ñuy mujjee ak ñoom mooy képp koo xam ne kii lii laale nga ci lu doon ne tarfatal ay nii di nga ñëw tontu dama laa haute cour de justice ma leen di waxaat ñoom bu fekkee ay saaga lañu yaakaar bu fekkee xasta lañu yaakaar bu fekkee ne xaxar lañu yaakaar ñu ngi leen di xaar bi assemblée nationale parce que ñun la ko fa yóbbu sénégalais xam nañ ko te duñ ko wàcc incha salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah waa CNTS. merci président Diop comme conférence de presse sinon dañu doon sàcc donc on va passer la parole au président.